d'accord te sëyal ma daan dem dama daan dem di ñëw mm-hmm. j'étais là dama doon jàng boobu temps parce que man bi mu am bac laa donc am samay doom dama doon dem chaque fête ma dem mm-hmm. korité tabaski vacances j'y allais avec mon mon mari d'accord mais nekk ma foon c'est rendu mais dama doon ñibbi si liggéey sama liggéey di dem di ñëw pour ne pas dire que en fait j'étais tout le temps là-bas mais de temps temps je suis parce que dama waroon toog ak sama jëkkër papa ma yaayam ne foofu il fallait que ñu dem pour retrouver notre famille vraiment dans le monde rural et ça m'a forgé et j'ai eu beaucoup d'expérience yoo xam ne permettre aujourd'hui même que ma am capacité wu yaatal sama bopp xam sama bopp xam samay valeur aussi parce que loolu dafa am solo aussi le vécu d'une personne c'est très important parce que fi nga jaar mm. xam xam war def loo war a bàyyi parce éducation bi ñu am ak suñu éducation fii du benn mhm. seen ay valeur ba léegi am na bala ñu préserver loolu nag amatul léegi si jigéen dañ yar wax la foo war a jaar noo war a def ak yooyu yëpp nga am noo war a jaar mhm. ak foo war a def ak lan nga war a bàyyi ak lan nga war a moytu mhm. donc euh, loolu tam dafa vraiment ça a contribué ama façonné ba nga xam ne mën naa ne fu ma dem mën naa fa nekk en tout cas c'est très très <laughs> comme lu mu wax jigéen euh, dafa war a nit sax ci boppam dafa war a am jaar jaar te yaakaar naa euh, nit da ngay am euh, donc passé am présent pour mën a tabax kon sa futur mhm.